ñu def ci lu toll ci 135 millions 746 mille francs yu tekk liggéey boo xam ne nag mboolem taalibe murid ñoo ko financé ci seen addiye ji nga xam ne ñu ngi koy joxe ci daayira Touba a kanam poste de santé bi tamit daañu fi def équipement boo xam ne daañ ko xayma lu toll ci ñaar téeméeri millions ci francs CFA. foofu ci la Touba ca kanam teg tànkam ba fas yéene lépp loo xam ne jàpp nañ ne lu war a am ci dëkk bi la ñun ñu fa yéenee doon ñi nga xam ne dañuy gëm ne ñun ñoo ko war a amal. am na logement ICP am na logement euh, euh, sage femme aussi. ambulance benn ngi nii ci seen kanam boobu tamit bokk na ci. bu tee leneen beneen équipement bu post bi soxla dinañ ko def ndax dañoo bëgg mu nekk poste moderne waaye nekk modèle type. cheikh Mountakha Mbacké xalif général des mourides ànd ak Serigne Abibou Mbacké moom cheikh Maodo Fadal ak mboolem kilifa yi ñu visité poste de santé bi bépp bërëb sëñ bi dugg fa daal di fay ñaan ba ci fi nga xam ne moom moo di jàkka ji nekk ci biir sëriñ bi julli fa ay ràkka ginnaaw bu Cheikh Mountakha visité mboolem bâtiment yi ci la ñëw ki nga xam ne moom moo di ab Serigne bu Mbacke moom Cheikh Amadou Fadal ci kàddu yi nga xam ne dénkoon na ko Serigne Fallou Galass la mu leeral Serigne bi liggéey bi. moom daal rek leen ci waroon bu noppee ñu teg sa liggéey bi nag dafa am ñu mu ko seqaloon ak lu ci am lu mu la bëgg a leeral tuuti rek ndax nee na nit ñi boo nee ci seen kanam di leen laaj seen alal war nga leen di wan fa nga leen koy defal. su noppee it nga leeral leen la nga leen joxoon lañ la joxoon nam toll ak la nga ca def fu mu toll. nee na diggante ba ñu tàmbalee maasale suuf si ba ni ñu ko peinturé ba noppi ci lépp nee na na ci téeméeri million ak fanweeri million ak juróom yu tegal téeméeri junni ak ñeent fukki junni ak juróom-ñeenti junni ak ñaar téeméer yu tegal ñeent fukki juróom fukki dërëm ak ñeent. muy cent trente cinq millions sept cent quarante cinq mille deux cent soixante dix sept waaye nee na ci biir xaalis boobu itam mbooleem këyit wum ci masa jaarale nga xam ne facture la nee na day ñëw jébbalaat la ko ndax yow lañ ko doon liggéeyal facture yëpp a ngi nii bu dee mbuusum ndox lañ ci jënd sax bind nañ ko ci facture suñu xol sedd na. na kon xolam sedd na. na. xelam dal na. di wéy di wéy yaakaar. suñu yaakaar. rëy na mat na sëkk. ci taxawaay bi ci taxawaay bi. askan wi nga xam ne ñoo dëkkee ci quartier Touba Lansar ñoom bëgg nañ lool ci poste de santé bi nga xam ne moom lañ leen fi taxawal. poste de santé bi ñu defal nag Touba Lansar ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax ndax Touba yàgg nañoo bëgg ab poste de santé.